dana de compte euh, euh, par exemple on l'a ramené yóbbu ko intérieur alors que dañ ko sanctionné woon avènement mars yi mel noonu moo tax may wax en fait euh, je crois que loolu buñ ko defee nga xam ne manqué naan ay information mm-hmm. parce que tam ab état c'est assez sérieux mm-hmm. kenn du ko def ci ay émotion wala ay règlement de compte. wala ay fay bor. Ah, non non ay waay fay bor. parce que mm-hmm. d'abord. nomination itam dafa dafa créer une certaine suspicion. quand parce que ñooñu kañ la leen xamante ak ñoom leen leen contacter parce que. tout s'est euh, passé en 2021. parce que d' abord Miss Forces armées ñu ko jox un militaire benn général. ah il préférait jox ko un civil. ndax lan. parce que quand même mën naa ne problème parce que fi mu ne il peut se mettre quand même. c'est vrai c'est le chef de dans la peau du chef d'état-major. il n'est pas chef d'état-major. c'est un danger pour la république nga bëgg a wax mën na bañ a am sécurité. directeur de la gendarmerie ak euh, euh, directeur ak chef d'état-major. xëy na administrativement la leen ministre force d' armée di di di di mhm. mais il il il il communique directement avec le président de la république mhm. ministre de la justice am daaw ñu ko jox un magistrat xanaa kenn Jacques Bonnet boobu fekk na ko mu démissionné woon ok parce que tam mën naa créer ay problème ci biir lu dëgg. d'accord donc ñii seen seen acte yi ah, soit ñàkk xam la. Ah, ah, wala mais dans tous les cas ça peut être un danger pour la République. xëy na moo leen doy parce que nomination tam ku doy. mais am na yu fi yu fi yu fi tàmmoon di am aussi dañu dañu dindi ko carrément. ah oui oui parce que comme euh, euh, euh, c'est la première fois mais au fur et à mesure ils vont ils vont. ils vont corriger ils vont se heurter ay ci ci ci inconvénients. Mhm. xëy na. tëb tëb rek lépp lépp lépp lépp kii lépp parfait luy luy xaw a jafe la. Mm-hmm. luy luy xaw a luy luy luy xaw a jafe la.